di leen sant di leen balu haq di leen ndokkeel di sak seen ñaan di leen ñaanal dolli ci borom bi tabaraku taala di ko ñaan muccu aduna ak bu àllaaxira di ko ñaan mba ak njëggal ak teraangi ëllëg mucc ëllëg ci orma yonente bi alayhi salatu wasalaam wala mel cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu mi ñu dajale fii ak bisum bi nga xam ne mooy sababu texe ci képp ku ko saxal nangu lu yërmande ci suñu borom wàccee ci kaw suuf mu yéene yërmande ñëpp yéene mucc ñëpp di ñaanal ñëpp di taxawu ñëpp di yëg ñëpp di fàggul ñëpp li nga xam ne mooy thème bi ñu nuy waxtaan loo tey am na solo lool ndax dara gënu koo war dara gënu koy farata dara gënu koo ñorit mu di waxtaane jamono aku meloom meloo jamono melaw nit ñi rek ndax jamono ci suñu bopp ci boppam mooy suñu borom tabaraka wa taala ndax nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ni laa tasubbu dahra fa inna dahra huwa allah bu leen ngaan ñu mukk jamono ndax jamono yàlla yàlla mu bind jamono mooy soppi jamonoom di am jamono yoo xam ne day tibb ci leeram ak yërmandeem xëpp ko ci ñoon jamono ja ci kaw xol yu bari yi ko nangu déggal ko ubbiku nekk ci aw yoonam yërmandeem ñëw gannaaw inda dikri saalihina tanzilu rahma ñu baax ñoo ñu waxtu woo xamee ne ñu ngi leen di waxtaane rek yërmande yàlla day wàcc rawatina nag bu ñu nekkee ci jamono bari di faggul nit ñëpp ak texe waxtu wu ñu fi nekkee jamonoy texe ngoog jamono dikk joo xam ne ci melaw nit ñi ci seeni jikko ci seeni jëf leerug yàlla ak yërmandeem dana wàññiku jëfi nit ñi ak seen xol xëcc lu leen di lor gis borom waxe rek ne waxara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyuziqahum bada alladi amilu laallahum yarjiuna yàq day am jamono yoo xam ne day feeñ yàq googu mooy yàqule yàqu yàqe ñetti yàq-yàq ñooñu mooy yàq ji matale ji tax suñ boroom tibb ci meram xëpp ko doomu aadama yi ci jamono mu nekk melaw jamono joo xam ne ku judd ca jamono ja màgg ca jamono ja dana la sóoru yow yaay bëreeg moom ba daan ko ci kaw yërmande yàlla waaye lu jafe mucc lay doon ndax day matale dara defu ko nag lu dul melow nit ñi ndax yàqule boobu di bijj yàqu di bijj yàqe fa yàqule yem fa la yàqu fa yàqu yem fa yàqule yam fa la yàqu tàmbalee di wéy ba fam yam fa la yàqe tàmbalee nag di wéy te amul ab doomu aadama moo yàq jamono ba jamono ñu kukk tilim lëndëm leer jafe gis dëgg jafe jub gën koo jafe fil barri wal bahri bi ma kasabatee di naas fekk na ci li nit ñi jëf rek la ndax suñu boroom dafa ne du tooñ mukk nit ñi nit ñooy tooñ seen bopp kon lu am rek ci lu dul noonu jëfi nit ñoo ko waral ak seen xol jamono nag gannaaw nit a koy fuub ba mu ñuul nit a war a seet boppam te ni muy seete boppam moo di ni lislaam tërale ci tàmbali ci biir cadre lislaam nga xam ne lu ñëw ci lu baax ci biir cadre bu la dugg dafa tëral aw yarinam nga xam ne yonent bi salaa sallam dafa nekkoon di cheikhu taalim di cheikhu tarbiya di cheikhu tarqiya di imaam ji jiite di général bi jiite xare bi di mufti bi nga xam ne mooy gàgganti képp ku gàgg di leeral lépp lu lëndëm di ki nga xam ne mooy tërbiye nit ñi doomu aadama yi suñu borom daf daan def bépp waxtu boo xamee ne ab yonent ñëw na ba dem lam fi jàngale woon nit ñi fàtte ko lii ñu dugal ci dindi la ci bokkoon ngi toog seen bànneex suñu borom yónniwaat beneen yonent bi nga xamee ne nag jamono dem na ba muhammad sallallahu taala wa sallam ñëw nga xam ne doomu aadama àgg na ci li ñu tudde civilisation lu tax dootu fàtte ndax lu mu fàtte ci xelam bind na ko ci këyit ko xam ne amul benn yonent bu fi ñëw boo xam ne bind nañu ci ay téere ci jàngale njub ak xamle ko ci jàngale yàlla ak ne ko jàngale nañ koy jaamoo ak la muy bañ ak li jubal nit ki ak ñu koy jox texit àdduna ak alaaxira amul benn yonent indi lu day ne li fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi téere yi kenn mënu xam nuñ toll buñ ko doon peese ay junniy junniy junniy tonnes lay doon ay million yi tonnes te lépp ci moom la jóge li xaddis rek nga xam ne ay junniy junni mat na million ci loo xam ne lu mu wax ci gémmiñam la booleeg alquran di nga xam ne dafa jóge ci suñu borom tabaraka wa taala jaar lawhul mahfuz jaar ci asamaa dunya wàcc ci moom bis bu nekk lañu war a àtte wala lañu war a xamle wala la war a tere wala la war a digle aaye ja nga xam ne looloo ko tax a jóg wàcc doomu aadama yi ñi ko toppoon amul jub goo xam ne jub gu dara sikkul la ñu am li ñu tudde ay valeur tubaab bi wax ay valeur suñu réew mii valeur yi nga xam ne moom la fi mag ñi saxaloon jële ko ci biir lislaam di loo xam ne moo doon sowe xeet wi tàmbalee ci ngor nit bu goree soo ko lebalee mu fay la soo ko defalee lu baax mu fas la ko yéenee dool delloo waxtu ngeen wéetee waxante dara mu jàpp loola bala ngeen waxante woon lépp mu def ko du ca bàyyi dara ca la mën waxtu woo xamee ne gis na luy bëgg a yàqu mu taxaw ci defar ko ngir yàlla kon ngor mënu ñàkk naka noonu jom doomu aadama bu amee jom moom it loo ko lebal dana la ko jéem a fay du nangu it moroomum doomu aadamaam gën ko du nangu mu gën koo ragal yàlla du nangu mu gën koo jub du nangu mu gën koo xam du nangu mu dàq koo jaamu yàlla naka noonu fit naka noonu wëllëre ba yépp mat mu di valeur yooyu nga xam ne ñu baax ñi fi nekkoon dañ koo tibbee ci lislaam jàngal ko nit ñi ba mu sax ci ñu dem nag ba nga xam ne daanaka fàtte nañ ko daanaka ngor moom li ci des bariwul lu koy sàmm ñu néew lay doon xam ne kon yàqu-yàqu bi foofa la tàmbalee koo lebal du la fay koo waxanteel bu fi jógee génn ca wax ja fàtte ko nit ñi bëgg lu teew bëgg xaalis ba nga xam ne fa ñu waroon a teg yàlla fa la ñu teg xaalis di ko jaamu ki amul dara li mu li mu def ba ñëpp ñaawlu ko bu ko am defee kenn du ko ñaawlu ki amul dara li mu ragal la wax wala li mu ragal a def ki am ñeme na ko wax ñeme na ko def te dara du ko ca fekk doomu aadama yi am lu ñuy tudde seeni moroom te du lu ñu mën a waat bu dee lu amit xamuñu ki ko doon mu di li ñuy wax ku ñuy tooñ xam ne dem nañ ba àggis jamono joo xam ne nit ki baree xaalis kenn dootu ko ragal xam ne bu njëkk ba mu amul ku jubbuntu këram teggi wala nga waaxu ñu dem ba boo xewlee këram day fees dell kenn dootu ko ragal te xam ne lañ doon wax boobu démb dootu dëgg ci ñoom ñu dem ba nga xam ne li ñu tuddee intérêt personnel njëriñal nit ci lu teew gënal ko ëllëg gënal ko njëriñal doomam ëllëg gënal ko njëriñal boppam it ëllëg dootu seet démb ndax kon walla rëy dem na nit ki dootu gannaaw bu dul seet démb rek amatul wëllëre du seet itam ëllëg ndax xelam itam ak bëggee yóbbu na ko ba nam waroon a xalaate dootu ko xalaatee nit ki dootu defati itteem ci lu dul na mu amee rek amin bi du ko seet mukk na mu amee rek fàtte nag ne adduna lu gàtt la te fifteen bu fi dugg sa poche wala mu dugg sa loxo da nga ko lijjanti ëllëg danga nga wax na ko amee danga nga waxit ci lan nga ko sànq ci loo ko def ba mu tàggoog yow te boo ko amee amin wi gën a rafet it am na lu ca war bu fekkee ne loo xam ne àq yàlla war na ca wala xaqi sa moroomum jaam wala xaqi mbokk da ko ci génne wala sa xaqi bopp yow ci sa bopp ñu dem nag bi nga xamee ne léegi yu ñu daan wax ay valeur nga xam ne nit ki liñ koy nawe moo di ragal yàlla mooy ngor mooy jom mooy fit mooy fulla ñu dem ba li ñu daan wax naan jant dafay fenke sowwu mooy yi rafetam yépp ñu jàpp ne day tardeel nit léegi léegi boo dee sàmm wëllëre ñu ne la yow de ku tardé nga boo dee segg di seet lu dagan ak lu araam di wattandiku lu araam li di wut lu dagan li ñu ne la yow doo am dara lii ngay def xew yi na kenn defatu ko lu yàgg yàgg danga nga fiy toog sa morom yëpp romb la rek ak seeni oto yu rafet ak seeni kër ngay walaakaan rek di ndóol bu ko defee bu sa ngëm dëgërul xamuloo ne suñ borom ay wërsëgal nga daal di bàyyi la nga nekkoon daal di dugg nag ci àdduna li yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan tere xuus ci àdduna xuus goo xam ne dafa lay fàtteloo àllaaxira lay fàttaloo ëllëg di la fàttaloo lépp li ci sa kanam te jëru ko ñu gis ne lay jamu du lor loolu dëgg ñun xamuñ ko woon ñun li ñu xamoon bu sa wajur waxee même bu juumoon amal teggin lim la sant def ko lim la wax déglu ko lim la tere bàyyi ko bu ëllëgee dana la jëriñ njëriñ loo xam ne bi ngay xaleel xamagoo ko woon ndax bi ngay xaleel yi ñu lay tere mu di la naqari yépp boo ko seetee ci xale bu tuuti buñ ko dee jox garab gu weex wala ñu di ko picc mi moom ci boppam day jàpp ne dañ koy lor rek dañ koy def lu metti bu mën a xam njëriñ li nga xam ne moo nekk ci métit woowu noonu la xaleel di mel ba ba muy ñor bu ñoree itam kat xamagul lépp war na am ku koy jàjjanti nit ku nekk boo bëggee jub war nga am koo rus war nga am koo ragal war nga am ku lay digal am ku lay tere da wax soo xam ne wii ñàkk nga ko seytaane mooy dal di kooku di la digal di la tere di fa nga xam ne nga bëgg fa la bëgg nga jaar fa ndax doomu aadama bi mënu la toog mukk te amul benn influence bu dal ci xolam mun la ñàkk benn ay xaritam dugal ko ci li ñu bëgg wala ay waajuram dugal ko ci li ñu bëgg wala mbedd mi jox ko aw meloom walla nit not ko nit ne moom not ko jaarale ko yoon woo xam ne bu ëllëgee daf cay alku wala daf cay torox loolu nga xam ne nag noonu mooy euh, importance yu yar te léegi kenn itte wootu ko bu ëllëgee nga xam ne waajur yi daañu am responsabilité bu rëy rëy rëy ndax li leen waroon moo di jàng lislaam te jàng du ñuy mukk nit mën naa jàng ci rajo yi nit mën naa jàng ci kaset yi nit mën naa jàng ci waxtaan yi nit mën naa jàng ci conférence yi nit mën naa jàng ci ay leçon yoo xam ne daf koy commandé nit mën naa jàng fu nekk te jàng moom faral nañ koy wax ak noo mën a jàngi rek ba xam am njàng ngoog te njàng mi gën a jëriñ mooy jàng bu nga xam ne da koy fas fas ko yéenee jëfe loolu mooy buñ seetee nag ne euh, yàqu jamono daanaka àgg na foo xam ne nit ñi dañoo rëcc nit ñi dañoo ndax ñi not nit ñi gën leen a naw gën leen a yéem ñu amee yàq gi di ko yàq ñi néew doole kon li leen mën a musal du lenn lu dul xam ne li ñu am a gën te mooy lislaam ñu woy ci jàng lislaam ba xam ko xam lim la digal xam lim la tere nga wattandiku lim la tere jëfandikoo lim la digal moo di mucc ah, alquran ab yar rekk ci nekk ba mat ndax nit ki ba mu muy faatu yar bu wees ci moom ndax nit gannaaw day juum nit dana naax nit dana fàtte nit it dana jort ne lii nii la fekk du noonu waaye ki fi jaaroon moom ba xam ko xam la muy indi ci lor bu la ko digalee da ngay dal di war a xam ne lii yow sax mu xamante agul waaye mooy li gën li nga xam ne nag ñu ngi tàmbali dina ko wàll muy ku nekk ak sa avis doo imposer kenn kat sa gis-gis ndax dangaa am sa gis-gis kenn amee gis-gis nga xam ne liberté d'expression mu am kenn ku nekk sa xalaat sañ da koo wax kon nit ki mënatu laa wax benn xalaat lu mu la gën gën xalaat mu la imposé nga gëm ko benn ci yàqu-yàqu yaa ngoob ba ci xale bu tuuti bi sax day dal di xam dal di gëm ne am na xalaat boppam boo xam ne moom la war a wéyee keneen waru koo imposé xalaatam te moom bu seetee ne xamagul dara amagul benn expérience ci àdduna buñ ko nee libre nga mooy alku nga torax nga dugal nañu ci yoonu musiba dugal na ne ci yoonu si ndax xamuloo dara nit ku jóg bëgg a dem ci dëkk te dëkk bi mu jëm xamul fu mu féete te àll bi ay gaynde nekk ci ay jaan ay till ay kàmb nekk ci amuloo làmp bu lay leeral amuloo kenn ku lay wommat amuloo ku la naan jaaral fii na mujj mujje lu leer rek la bi nga xamee ne eh, doomu aadama bi bu nekk am na ñaari seytaan yoo xam ne ñoo lëkkoog moom te du ñu tàggoog moom mukk du ñu tàggoog moom waxtu woo xamee ne bii turu yàlla walla déglu ko waar tàggoo naa ak moom seytaane si daal di song dugal ko ci loo xam ne lii mooy la koy alal ëllëg bon li nu war moo di nañu xam suñu bopp bu nu xamee nag li nu amee moo gën lu keneen amee ndax lislaam la nu amee ak bi yar am itam kislaay moo di sëriñ bi nga xam ne dafa àgg ci yàlla àgg ci yàlla am ngërëmal yàlla mën a xekk li mën a fekk ku texee di mu texeel ko mën a fekk ku ñu bind turam ci texee di mu far ko bind lu ko ci texe kooku amul benn waru garab bu gën a rëy dellu si ci kooku waaye nag ki nga xam ne mooy sëriñ bi dafa xam ne doomu aadama daf dañoo am yoon yu ñu war a jaar benn moom ci boppam am ngërëmam moom mooy lépp waaye nag sañ-sañ di ko yàlla joxoon ak may bi lépp teewul mu xam ne doomu aadama yi kat dañu leen war a leen jaarale yoon woo xam ne mooy yoon yi nga xam ne mooy yoonu sharia moo tax li mu bind lépp mu bind ko luy tawxiid bind na ko wax nit ne war na ci doomu aadama yi ñëpp jullit ñëpp ñu njëkk a xam lu tawxid mooy fi nga xam ne fa lañu war a teg yàlla boo xam ne tawxid dëgg dëgg am tawxid ju wér kenn du mën a fëkk ndax kenn du la wax lu bees mukk mukk te ñu la wax itam yow mi xam ne tawxid bu dul lu jub dañ koy daal di xam boo ci jógee fiq mooy ni ngay jaamoo yàlla tasawuf nag mooy li nga xam ne mooy ubbi sa xol dugal ci xam yàlla dugal ci bëgg yàlla dugal ci leeru yàlla nit ki nga xam ne nag moo àgg ci xam yàlla mooy kii weesoo yàqule waaye fit ak bu gisee weesuwul yàqule ñu ne nag kon doomu aadama yi gannaaw annaasu halka illa al aalimuuna wal aalimuuna halka illa al aabiduun wal aabiduun halka illa al muxlisuun wal muxlisuun ala xatarin azimin doomu aadama yëpp ñu ngi jaar ci yoonu alko ñu waxee ne inna lisaan la fi xusrin lu dul ñi xam seen diine waaye ñu xam seen diine yépp ñoom it ñu ngi jaar ci yoonu alku lu dul ñi jëfee la ñu xam ñi jëfee la ñi xam ba noppi jëfee li ñu xam ne ñu ngi jaar ci yoonu alku lu dul ña sellal seen jëf ñi sellal seen jëf it ñu ngi si guddi gu biir sa tegul xamuñu ñoom it ci lu ñu jëm nga xam ne kon nit ki dafa am war-war yoo xam ne xaw ma ko xaw ma ko woon du tax mu mucc ci ba mu ko jëful mënuma ko woon it na joxe lay mbir wane ne mënu ko diwa ma ko yàqaloon it diw moomee ba mu la koy yàqal yàlla wàcce la loo xam ne mën na tax ba boo ko toppee kenn du la yàqal mooy li nga gëm bi nga xam ne dem noo nekk Amérique xam ngeen américain yi rawatina ñu ñuul ñi daf ci bari ñuy tuub am benn américain bu ñëw laaj ma fukk fekk ne ba mu njëkkee ñëw bindul laaj yi dafa doon wax rek ma ko tontu ca ëllëg sa bi mu ñëwee nag bi mu daal mu téléphoné ne fukki laaj ak benn laay indi ba mu dikkee fukki laaj ak benn indi ko rek moom catholique la woon nee na dañ leen a jàngal ci seen diine ne leen Eesa nee na moom mooy bunt bi nga xam ne mooy caabi àjjana kenn du mën a dem àjjana mukk te jaaruma ci moom kon mooy diine ji wér diineen mooy diine ji wér te amul yeneen diine ji nit mën a jëfandikoo ba dem àjjana mu wane ne ñu ne jàngal nañ leen it ne leen ku ñu dugalul ci néegu ndox bi maanaam ku ñu sangul ci seen sibxa boobu ñuy def doo mucc mukk ci seytaane te doo mucc ëllëg te kon doo dem àjjana fokk nga dem ci néeg bi nga xam ne dañ ko teg ci kaw montagne bi def ko ndox ba mu fees ñu dugal la ca nga génn te it amul kenn koo xam ne kii mën nga jege yàlla walla nga xam yàlla te jaariwoo ci moom ndax moom benn bunt la bu yàlla ubbi ci ko suuf si te dootu am amatul beneen bunt mu ne kon te ñun ñu jàngal leen ne leen Muhammad sallallahu alayhi maanaam lislaam Muhammad a ko sos boobaab léegi junni at ak ñeenti téeméer la waaye ci xalaatu boppam rek la ko sos du joo xam ne jóge ci yàlla mu ne nag ba tey jóge gi mu jóge kon moom ci diine nasaraan dugg ci lislaam am na ay moroomam yoo xam ne ña nga ca diine jooje ba tey dafa bëgg di discuter ñoom te laaj bi ñu ko laaj mu xam na mu koy tontoo te ñoom dañuy mel ne dañ koy condamné ci wan ko ne diine ji dugg du diine waaye mun la mucc te dellu si ci diine ji nga xam ne Isa mi ko fi indi loolu la wax ne ko itam Isa mooy doomu yàlla ne leen ne ko itam kenn koo xam ne ci judduwaatoo ñaari yoon fakk sa baay fakk sa ndey fàtte leen doo mën a dem ci yàlla laaj yu bari la bind moom bindoon na ko waaye man ni ma këyit war waaw ah. ndax américains yi dafa bari ñu tuub lool mu ne nag léegi kon nan lañuy moom nan lay mën a justifier l'islamam ci kanam bi nga xam ne dañ ko wax ne ko Esa nee na kenn du mucc te jaaroo ci moom mooy benn bunt bi ma ne ko waaw Esa wax na dëgg de Esa wax na dëgg ndax diine ji aadama mi njëkk a indi diine l'islam la amee woon yonent bi fi ñëw ci l'islam nga nekk l'islam diine ji l'islam la tudd continuité am maanaam ku ñëw rek mu ngi mel ne rek ay chef d'état yoo xam ne dañu yilif mu réew waaye ki dem moom ñëkkatu fi ay luwaam ak i bëgg-bëggam saxat yi ki fi teew rek Isa ba muy wax loolu looloo amoon ndax mi ngi ko doon wax ña nga xam ne ci ñoom lañ ko ni moom waaye ba nga xamee ne diine de changé nañ ko am dugal ci yu ci bokkul ba suñu borom xam ne war nañoo indi beneen diine ba Mouhamed ñëw mission jeex na léegi ku fi ñëwaat diggante kooku Mouhamed la Issa ci yow mu ne ko nag léegi bu fekkonte ne léegi da ngeen ne buñ ne la woon léegi bul reconnaître kat Bill Clinton reconnaître Bush rek wala ci Sénégal ku ne woon bul reconnaître Abdou Diouf reconnaître Senghor rek ndax loolu dana sotti mu ne loolu du mën a am mu ne ko noonu la demee ku sa mission jeex keneen ka ñëw place ba nga toogoon lay toog waaye nag Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li tax muy diine ji mujj ni ma waxee woon ne rek moom li ñu bind jëlee ko ci moom amul benn yonent boo xam ne bind nañ ko jëlee ko ca ca yow bu dee l'ancien testament bible bi scientifique yi jël relevé nañ ci erreur yu bari yu dul jeex mu leer leen ne kon lépp jógewul ca yàlla kon am na lu ci doomu aadama dolli te doomu aadama moom mooy juum mooy ñàkk xam waaye yàlla moom lu mu wax du deñ kon bu ngeen gisee ne dem ngeen ba xam ne lii amul te mu nekk ci biibal bi da ngeen di xam ne kon nit ñi soppi nañu diine ji yàq nañu téere ba ba tax beneen téere war a ñëw buñ ci jógee ñëw ci nouveau testament bu ñëwee ci évangile maanaam leen jéem liñ jiir yi am dafa bare lu ëpp fukki liñ jiir am na waaye ñeent rek ci imposé ñoo ci mujj jamono saxal leen ba ñu ne si waaye ñoom itam gis nañ ñoom seeni contradiction mu leer nu ne ndax ñooñu ko doon bind gisuñu ay saar dañoo toog ba mu yàgg lool ñu ñëw ci àdduna bind ko te ku gënoon jege muy Bernabe moom lim jël bu mu bind xam la na ci muhammad xam la na ci ne yonent dina ñëw boo xam ne xam la na ne insa mooy borom mbaam mi kooku mooy borom gëléem bi te kooku mooy kii xetlee insa moo waroon mbaam mi muhammad salaa sallam xam ngeen arab la arab yi ñoo daan war gëléem yi moom war na gëléem ba tàyyi moo doon war gëléem moo moo am xaswa gëléemam yooyu mu amoon daan ko war joxe na tegtal yu leer ne dana ñëw sama ab yonent sama gannaaw koo xam ne muy mujj yonent yi te kon léegi néegu ndox boobu l'islam ku tuub da ngay sangu ku da ngay sangu ndax li nga jógee muy kéefar sobe na inamal mushrikuuna najasun te loola itam sax dafa aju woon ca ñëpp bokk ak Isa jamono rek nga xam ne Isa la ñu yónni woon ci ñoom waaye ñii nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi la ñu yónni ci ñoom buñ ko reconnaîtreul amuñu diine te bu ñu deewee lakk loolu mooy li xam ne moom la lislaam jàngale te mooy li am itam mu daal di nag ba nangu ne mu ne waaw ba tey kon buñ ne ma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo sos lislaam boobaa léegi junni ak ñeenti téeméer la lan laa leen di tontu ma ne ko nga ne leen kon bu fekkente Muhammad a sos lislaam nga ne Isa moo sos christianisme Isa ñetti at la woote ci adduna dund na ba am fanweeri at ñu soog koy yónni mu woote ñetti at jóge fi Isa am na ñett yoo xam ne doomu aadama yi ko ñu ko cee roy ndax mësula sëy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ne xam nga ne sëy ñaari way dencante ay xaq am na ci ñoom kenn ku nekk lu war ci sa morom sa digënté lu war ci yow sa digënté ak sa morom lu mu la amé rek loko amé ak na lay def ba xaq du am seen digënté ci ëllëg bis ba nga xamé ku seen ko xamul rek daw nay sa ndey nay sa baye nay sa soxna nay ko mu doon esa ak ci mu ko yim ak bari bariwul kon muhammad sallallahu alayhi wasallam diina jim indi dafa àtte dund nit ba mu juddoo ba bi muy génne àddina àtte na jaaye jënd atte na sëy atte fase atte miraas atte lekk sax sàtt na na jullit war a lekke na ngay naane ba dara desi ndax lu tax dafay dafa dikk ci mujjub jamono nga xam ne doomu aadama yi li leen di sàb bi dafa bare nga xam ne doomu adama yi ittewoo nañu itte yu bari yoo xam ne seen dunda ko indi ndax fii diin fii fii adduna àgg moo ko waral ñaar ni ma ko faral di waxee naan leen mu ngi mel ne rek état du enseignement enseignement primaire enseignement secondaire ba ci enseignement supérieur moy l'islam enseignement secondaire moy christianisme bu ci nek fa judaïsme mooy enseignement primaire fa do aadama yi tollu woon la tollu woon ci seen xel ak seen civilisation seen dégg ñu indi leen diine ci ca légui bi nga xamné nak nag diine doomu aadama ag na ci maturité nga xamné lu ñu bin légui kayit amna machine ak ñepp mujjina am nga xamné li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale won amut luñ ci mëna yok wala luñ ci mëna wañi alquran nako jibril wacce won ci yaronte bi la mel ba legi te amul benn téré bu am jinni ak bo xamne nan nga nonu amul téré bu mel alquran téré bu wér moy bi ci gëna yar moy bi ci mag moy bi ci gëna wér itam da ko nak lolu moy tax dootuñu yonne ci yaronte ndax soxlaatu yonne yaronte legi benn benn jaam bu mu doon boo xam ne bii dugguloo ci lislaam bu yomal xiyaamee dootoo am lay ndax lay ñi nga mënoon a am moo doon woote bi jot ci wuma wala damaa julli ci diggante yonent boo xam ne dafa dem lam jàngale woon ñu fàtte ko wëlbati ko ba ku ko dégg du tax nga gëm ndax ay caaxaane ca dugg ba bari ca ba tax du tax kenn nga gëm te beneen yonent ñëwagul kooku man na am lay wala ki nga xam ne dafa nekk ci réew yoo xam ne léegi l'islam àggu fa waaye léegi ba adduna daj fu fi nekk rek l'islam àgg na fa alxuraan àgg na fa boo boo bëggee jënd kaamil da ngay dugg ci bitim rek jënd kaamil beneen téere boo bëgg jënd noonu ba ci Amérique bi ba ca euh, Australie ak foo mën a dem ci àddina kon léegi amatul kenn ko am lay te noonu Esa waxoon ci jamono ma taxaw mu di ko wax Muhammad itam jamono bi mu ñëwee ba ba àddina tukkee tax waaw man yëpp taxe xayral islam yi diinan fa la yokk bala nga noonu alxuraan dafa ne képp ku sàkku benn diine bu dul diine l'islam yàlla du ko nangu te inna diina inda la lislaam diine ji yàlla nangu mooy lislaam rek kon baax bu nit mën a baax yërmande joo mën a am tabe boo mën a am njëriñ lu bari loo mën a am di jëriñ nit ñi dëgg la mën nga bañ a lakk ndax suñ borom du lakk ku tabe du lakk ku bari ku jëriñ nit ñi njëriñ lu bari waaye nag doo dem àjjana ndax àjjana ku jaamuwul yàlla doo ci dugg te jaamu yàlla ci lislaam ci farataak sunna ji nga xam ne mooy islam rek la ko suñu borom di nangoo dootu ko nangu ci